mooy tëj bi nga xam ne tëj na. dañ ko D-Media bon Zik FM ak Sen TV ndax ay dara dañ ko aaye revue de presse yooyu muy def mu def ko. mu aaye ko jox leen mise en demeure mu persister ñu xëy euh, waa CNRA daal di koy tëj ñu gis ne ba léegi ñoom ñu ngi campé seen position d' naka ngay apprécier tëj boobu nga xam ne tëj nañ ko ñaari rajo bi ak télé bi. jaay doole jaay doole. parce que kon war na mën a nekk maire. di di di mais effectivement mais presque ku neex man aw ma problème ci ku far moo tax man j'ai toujours dit que réew moo munti dem man dem naa réew yu am doole quand yoo xam ne gis naa presse yu far. soo demee aux États-Unis nga xam ne réew mi ñuy cité toujours ci démocratie la mais da ngay ñëw gis organes yoo xam dañoo far ci démocrate yi. Mm-hmm. am organes yoo xam dañoo far ci républicains yi. Mm-hmm. mais américains yi ils sont libres. ku nekk boo tegee sa organe bu la neexee nga teg sa organe même de propagande c'est pas interdit. il faut nit ñi comprendre loolu c'est-à-dire mu neex teg sa organe faral ku la neex loolu c'est important ñu leeral ko. amul réew mooy dem te organe ba tey jii barki Demba gisoo fi RFI ak Le Monde. ak Jeune Afrique ñëw fi ci tappalay France daan ci ñëwaat xëy na ci kanam mais euh, organes yooyu propagande dañuy defal France ci àdduna bi loolu c'est normal ñëpp xam nañ ko maintenant euh, fii Sénégal tamit Ahmed Aïdara su fekkente ne moom position yi muy jël dafa gêné mais am na ñeneen ñu ne ci yeneen télé di jël ay position yu gêné pour le pouvoir comme pour l'opposition bokk Yewwi di jël position non de bokk ak foo xam au contraire au contraire loolu la nit ki dafa am droit liggéey gis nga li nit ñi comprendre mooy fonction yi nga xam danga ko am euh, élective nga xam dañ la ko fal loolu la fal bu mu tax nga yàq sa liggéey bi nga xam si yow da ngaa dem euh, wax dëgg yàlla ñu formé la ci wala nga formé ci sa bopp mu nekk ci école wala yaa formé sa bopp en tout cas da ngaa da dem di xeex pour wut sa métier ak métier mu nu mën a tudd ban la cay jox euh, sa sa teraanga kooku mënuñu laa tere ne la doo ko fi defee kooku jaay doole la. cest di dire ay dara am na droit nekk maire ba noppi am liggéey ñoom politiciens yi ci bëri amuñu liggéey moo tax bëgguñu kenn koy def politique di am liggéey mais loolu dara nekku ci maintenant bu dee ci far gi la nag am na droit far fu ko neex parce que média ci àdduna bi yépp média boo lim bu dee ñi xam xam nañ fu nu far soit dañuy nekk média de propagande gis nga LGBT yi ma la doon wax sànq. am nañ ci àdduna bi ay médias yu am doole yoo xam ñoom rek la ñuy ñoom rek la ñuy protéger lépp luy seen i àq seen i la ñuy fësal lépp lu leen arrangé rek la ñuy wax duñu wax leneen mais ñooñu médias yooyu ñoom lañ faral am ñeneen yoo xam ay médias yoo xam si ñoom fësal diine leen tax a jóg am eh, média boo jël am na ligne éditoriale ligne éditoriale boo gis day far ca lee wala day am benn enjeu boo xam moom mooy moom lay porté mais Ahmed Aïdara nekk un animateur. di am ay position mais c'est tout à fait normal télé boo fi dem nit ñi bu ñu waxantee dëgg boo fi jël na ñoo xam bu ñu waxee nit ñi xam fu ñu féete da nekk ci télé nit nit rek la mën a doon dañ ñaari ginaar yu xeex sax boo leen fekkee ñuy xeex yow sa xol am na ko mu faral. mais est-ce que war na feeñ ci li liggéey. dafay feeñ loolu ay wax rek. gis nga li naan ay déontologie parce su boobaa su boobaa. tamit li ma la wax bala ñoo wax loolu ñu koy rek loolu luñ bind la. mais waru ci am benn. par dama ne loolu loolu la. mais dama ne la amul amul amul nit nit moo mel noonu ñaari soxna sax boo leen amee day am ko da ngay am koo féetal ci sab xol yaa may dégg gis nga nañ arrêté ay affaire journaliste wër te jeng yooyu waxu caaxaan la xamul tax fii bu ñu waxalee yàlla journaliste boo fi jël pour mu dikk doomu équilibré lu jafe-jafe-jafe la ku ci nekk am na foo féete léegi nag li ñuy wax mooy la ngay wax na nga ko teg ci dëgg loolu lañuy bañ ngay ñëw di inventé loo xam ne tegoo ko fenn. sa naa yéen a war a laal parce que dañuy bañ ngay influencé. waaw waaw mais day nekk benn média moom laa lay wax mais y a des de propagande dans le dans le pays man fii Sénégal. su ma jëlee les vingt six ou vingt sept quotidiens yi daw ci télé bi. Mhm. mais xam naa fii yow yi passé man xam naa fii benn journal ah le journal lii quotidien mhm. mais pendant tout la campagne il a titré Diouf Sarr. pendant tout la campagne local yëpp Diouf Sarr le titre est-ce que waa CNRA woo ko est-ce que kenn woo na. en. waaw dama ni non mais. kenn dama ni si nekk ñoom Corrède moo waxoon ak ñoom. waaw dama lay wax Corrède ak yëpp a ci yem le tribunal des hmm. capable de les arrêter kenn arrêté wu ba campagne bi jeex li ma lay wax ni kay dernière journée ba ci dernière journée bi. ci campagne ñi ngi ñi ngi wax ni ñi ngi génne ay sondage di wax ne Diouf Sarr ay gagné di influencer le le vote mais malheureusement Dakar waaye duñu ay dof malgré seen tappale yooyu ñu doon def dakaar waaye mhm. voté wuñ dans le dans le même sens donc dama la bëgg wax ni am ligne dafa média yoo xam danoo far ci opposition bi am média yoo xam danoo far ci pouvoir bi te ñoo ñoo actuellement am média yoo xam dañ koy jéem a équilibré mais équilibré boobu loo ko équilibré da ngay toll moment boo xam da ngay gis ni euh, boo xoolee bu baax di nga xam fi mu féete dama la amul benn média Sénégal bu farul loolu mooy dëgg pour wax ji féete boor mhm. média boo fi jël am na ligne éditoriale boo xam ne dafa soit mais am na am nañu équilibre tamit nga nangu voilà mais loolu équilibre boobu moo jafe loolu laa lay wax loolu moo jafe gis nga équilibre boobu lu jafee jafee jafe xam nga am nañu ciy góorgóorlu parce que de waaw voilà loolu d'accord naa ko am nañu ciy góorgóorlu parce que du fes mhm. waaye mënoo ni faruñu day am toujours fu nu far maintenant nag fan far dañ koy rafetal pour pour que mu équilibré loolu lañ leen def loo parce que nit lépp looy def nga rafetal ko am na solo ok waaye nag man daal li ma gëm mhm. mooy nañ bàyyi seen jaay doole bi Ahmed Aidara li muy def man xam naa ci yeneen organe ñu fa nekk ñoo xam ne la ñuy def nguur gi lan jege ña wax loo xam ne nguur gi la arrangé da façon ban koy defee wuuteeg Ahmed Aidara Ahmed Aidara moom ni mu koy defee avec son style bon certains moo gën a fës waaw ñi mën nañ ne dafa gën a mais gën a fës taxul mu gën a dangereux man xam naa ci ay organe ñoo xam ne li ñuy wax ni mu arrangé Macky Sall dafa jéggi day wa mais nag dañ koy defee noo xam ni ñi dañ ko sentir hmm. xam nañ fi ay organes yoo xam bu Macky Sall nekkee en difficulté seen i programme da ngay sentir ni koy jàppale bu si Macky Sall est trop fort ñu commencé ko attaque mhm. parce que pouvoir dangay am des o et des ba dangay ngay toll moment da ngay am doole. toll ay moment am da ngay faible devant l'opinion léegi nag am na xam naa médias yoo xam boo leen dee suivre di lire seen affaire wala ngay xool li ñuy def dangay ngay gis ne bu Macky Sall nekkee en difficulté dañ koy jàppale ci ni ñuy titré ci ni ñuy defee seen i article bu ñu demee ba nga xam ne gis nañ ni Macky Sall il est trop ñu nëbbu ànd bañ ànd ak moom daal di commencé di ko attaque donc yooyu yëpp am na fi kon nag man li ma gëm mooy dañ koo yab rek fii bu ñu fi waxee waxu far ba tax ñu tëj. Euh, Zik FM euh, ak Sen TV mhm. dañ leen a yab rek mais bu doon lool rek la ñuy xool kon bu ñu xoolee ci beneen côté bet gis ñoo xam ne war nañ leen a tëj ndaxte noo dañuy jàppale Macky Sall bés bu nekk donc man il faut que les gens arrêtent nañ bàyyi doomu jàmbur mu def liggéeyam normalement ñu bàyyi également. Euh, Sen TV ak Zik FM ñu def seen liggéey parce que loolu mooy dëgg parce que ñoom rek nekkuñu fi di def loo xam ni nit ñi jàpp nañ ne danoo am fu ñu féete maintenant bu ñu féeteeg féetewuñ man débat boobu du ma ci dugg parce que du ma ne Sen TV daa féeteeg opposition wala da féeteeg pouvoir loolu du ma ci dugg parce que comme ni ma ko waxee su ma ko waxee te waxuma ci ñeneen ñi dama leen di tooñ mais li ma wax daal mooy boo jëlee média Sénégal yëpp ak euh, boor bu ñu mën a féete mm-hmm. ak euh, vraiment euh, euh, boor buñ ci mën a dox da ngay gis ni wax dëgg yàlla ñu ëpp ci ñoom. dañuy am fu nu féete. te féete boobu ñi deful xam nañ ko. léegi nag kon nga ni yow kee mënta féete parce que daa nekk maire la muy wax day day arranger opposition bi na arrêté alors que am na ñeneen ñoo xam nekk ñu maire mais ña def lu dul yoon man jàpp naa ne loolu teguwul ci dëgg.